fi defee vendredi passé def nañu def nañu benn bon jàllale nañu message yi taxoon ñu def ko mooy euh, fexe def la pression euh, pour que ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaso bi ñu tuddee ne ay ay détenus politiques. naka nga gisee yow noo ko jàggate. ah hmm? yow noo ko jàggate <laughs> man maay laaj man maay xaritam man maay laaj man maay laaj. mami ah doo bàyyi ma laaj la rek. waaw déedéet damay laaj mami mami xam nga Ousmane toog fii rek ngay laaj te yow mën nañ la laaj tamit yow loo ko xalaatee doo ci gisee. bu ñu demee beneen tribune après après nga invité. yow non yow noo gisee noo gisee mobilisation F24 bi keroog bi nga gisee mobilisation bi yow kontaanoo. amul benn problème d'accord ayca. ayca <laughs> amul problème amul problème. ah léegi noo noo jàngatee euh, mobilisation bi ak message yi nga xamante si doon nañu ko fa jàllale ah est-ce mën na def effet tamit ci situation bi. waaw déjà rafetlu le fait que ñu autorisé euh, li nga xam ne moom mooy manifestation bi il était temps. Euh, que ñu mën a retrouver waat vraiment cette euh, cette cette partie de la démocratie sénégalaise. Mm parce que xam nga booy wax démocratie rek liberté ci la bokk. Euh, te mënoo wax liberté sans pour autant nga relever le droit de manifester ou de tout simplement montrer son mécontentement mhm. euh, d'une manière ou d'une autre euh, mais de la façon la plus civilisée la plus correcte possible ak selon les règles et les dispositions yi nga xamante ne moom la loi bi santaane mhm. euh, et on Sénégal dafa xawoon a commencé manqué loolu tuuti dafa bëri woon bokk naa ci man mi d'ailleurs ñi doon def plaidoyer di kaas ni il euh, y trop de restrictions de liberté qu'on ne nous permet pas ñu mën a li nga xamante ne moom moo nekk ci ci ci dënn yi mm-hmm. donc le fait que ñu autorise ko c'est très bien et j'invite vraiment nos autorités à continuer à aller dans que mm-hmm. c'est important que et puis bu ñu dee autoriser manifestation yi rien ne se passe Marfous mm-hmm. tout se passe tellement bien parce que les gens sont responsables dinañu dem defi seen manifestation dinañ délivrer seen message tasaaroo ku ne dina ñibbi boo xefee sax dinañ for mbalin mbaag liy taxawaalu foofu yëpp mhm. donc ce qui veut dire que vraiment nit ñi ce sont des personnes responsables y a rien à craindre à autoriser une manifestation et à permettre aux gens ñu mën a wax li nga xamante ne moom moo nekk ci seen biir xol ça a été une bonne chose pour F24 aussi parce que depuis euh, li nga xamante ne moom moo jógee ci affaire question au troisième mandat bi mhm. faut dire que F24 dafa xam a xam am tuuti benn chute libre ne lu ci bëri ay échec la mhm. ci lépp lu mu sóobu euh, pas que, que F24 on a vu euh, vraiment une certaine mobilisation euh, boo xamante ne ñi ñi ñëw nañu déplacé wu xëy na amaana nag ñi ñu tàmm dégg ak ñu ñu tàmm gis gis nañ leen ñu jël ñu jël micro wax seen ay position par rapport ak lu ni mel pour man loolu day taaral démocratie mhm. euh, donc aujourd'hui après nag au-delà de tout cela euh, li ci gën mooy ne pas considérer que benn vent la rek boo xamante ne da doon jàll wala coow la boo xamante ne amul importance. Mhm. il faut mesurer. Euh, importance bi nga xam ne kaddu kenn ku ci nekk am na ko et au-delà de kaddu gi présence su sénégalais yi bi nga xamante ne ils ont voulu euh, également euh, faire le déplacement wane ne am na loo xamante ne naam d'accord ñu ci et soxla nañu rupture par rapport à tout ça euh, si on va dans ce sens-là vraiment dina permettre euh, Mahfouz li nga xam ne moom la ñuy ñi di garder mu xaw a wàññeeku quand même tuuti mm-hmm. euh, parce que expression de liberté boobu mooy tax ñu mën a délivrer sentiment yi ñuy ressentir euh, par rapport ak li ñuy dund mooy notre vécu de tous les jours. ak mm-hmm. situation bi ni mu tëddee. Mm-hmm. te beneen bi ci topp mooy Mahfouz quoi qu'on puisse dire sincèrement. man de euh, dinaa am mbégte lool jour bu ma xëyee yëg ni ñi nga xam ne jàpp nañu leen ci kasu bi bàyyi nañu leen ñu dellu seen i kër ñu mm-hmm. ñibbi. Mm-hmm. pour la toute bonne et simple raison que de toute façon quel que soit alpha ak lu mënti xewi des années après lii nu dund Sénégal dinañ continuer di ko histoire dina ko dina ko jàpp dina ko retenir comme di le français l'histoire retiendra. Mm-hmm. du nu fàtte benn épisode bu diis. wala bu triste boo xam ne sénégalais jaar nañu ci te xam nga jamono bii nu toll ñun ñëpp d'accord nañ dëkk bi dafa metti dafa metti ci ban côté fépp bépp côté metti yow sa côté dafa neex

ne dëkk bi dafa metti nga ne ma ndax dëkk bi dafa metti dama ban côté laa wax. côté yëpp la metti waaw maa ngi yëg. wàllu wér dafa metti feebar faju jafe jafe la ci réew mi maa ngi yëg. wàllu location dafa metti. maa ngi yëg wàllu dund gi dafa metti Mm-hmm. sur le plan de des libertés ak les ah kon yëngu ko yëngu woyofal dafa metti dafa tar am na ñoo xam ne seen facture ndox moo gën a seer téeméeri junni yoon seen facture courant sama facture na trop tuwaarkàll kon nag quand je dëkk bi dafa metti c'est dans tous les sens et même quand on parle de restriction de liberté mm-hmm. jàpp nañu ne am na lu bari loo xamante ne ci wàllu sañ-sañu sénégalais xam mm-hmm. nga Wade ndeysaan moo nu tàmmaloon nanu Cheikh Ousmane boo amee lu la naqari gën a takk sama morso waaye nag bokk bokkul ak boo amee la naqari génnal toj wala génnal génnal taal sa après loolu moo mujjee am. ñan ñoo toj ak ñan ñoo taal non mais dund fii. dund waaw ñan la ñan la dañoo ubbi enquête. dañoo ubbi enquête non ñu ñu contre ñu contre régime bi la. ñu contre régime ñoo toj ñoo taal si ah bon ah ñan la. ah ñoom ah non xaw ma. non dama lay laaj parce que man parce que man dama man ba léegi. ba fii ma nekk nii ay nit yu contre régime bi fi nekk. bëgg ne ñoom ñoom ñoo yor bu baax bi ñoom ñoo yor seen pour yow pour yow ñoo am seen programme bi gën ci Sénégal toj beeg kas bi ci ma am yëpp en fait c'est juste pour des raisons politiques noonu nga ko jàngate mais loolu très bien c'est ton opinion je le respecte mais je suis loin de cette opinion là bi nga xamante ne moom nga garder et j'espère que et j'espère que à part euh, politique bi ban ban raison moo tax ma ne et j'espère que nos autorités comprendront que hmm. colère u sénégalais yi dépassé na de loin li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique politique naam bokk na ci waaye dafa am leneen loo xamante ne moo ko wundu lu ko gën a fort lu ko gën a profond kon yow Mahfouz comprendre état d'esprit bi sénégale yi nekkee en fait yow tu es loin de comprendre nit ñi xol bu tàng bi ñuy doxee ak li ñuy véhiculer tout le temps weesu na li nga xam ne moom la ñuy wax ci wàllum politique parce que boo bëggee dégg-dëgg sénégalais lambda bi ngay dajee kooku di góorgóorlu boobu di xëy di dem di lijjanti ci dépense kooku boo ko taxawalee di ko waxu politique intéressé wu ko kooku lu mu dundalee njabootam la tal est-ce que yaa ngi comprendre mais terewul on s'en fout que ni kooku mën na toog jàpp njàmburam xam ne peut-être que lii comme ni ñu koy waxee adduna bi tamit moo toll foofu moom adduna bi pratiquement euh, crise dafa am crise économique bu fi nekk muy Sénégal muy France muy États-Unis ñëpp ko yëg ah ñëpp ko yëg ñëpp ko yëg léegi su fekkente ne yow politique yow politicien bi au lieu bu fekkee yow politique bi au lieu nga nga nga sensibiliser nit ko wax li nga xamante ni moom mooy réalité moo xew ci adduna bi nga ni ko ki fi nekk moo la teg lii yow war nga mën a am dund bu gën a bu gën a euh, bu dàq bi mais kii fi nekk nii tey lii ngay dund nii problème yi ngay dund yëpp moo la ko teg. mais li ngay wax nii kan moo ko war a def non non ki doit informer. non non nga jot yow benn information. <laughs> yaa gën a xam ñëpp ne dans ce pays là le fil du dialogue est rompu depuis très longtemps entre l'État et le peuple. loolu moom loolu wax arrêtez toi tu vis dans quel Sénégal yow da am Sénégal imaginaire booy dund bu ñu dund dundul man wala la Sénégal wala yow dañ la tabaxal si benn Sénégal boo xamante yow yaa fa nekk yaa koy dund la moom rompu mais dialogue bi waaw mais dialogue bi moom s'il te quoi non su dañ lay woo dialogue nga ne ñëwoo ma kay nu ñuy su marance lan lay wooyee dialogue <laughs> yeneen di dialogue ay romb daal daal la dialogue ay romb dama yaakaar ne yow dina ma parce que tamit bu fekkee ne c'est Ousmane kaay waxtaan ngeen ne ñëwoo ma après nga toog ni la dialogue est rompu kan moo ko am. ah <laughs> woon mujjee am dëgg nag. ni ñu amee dëgg. waaw que ma gi démb ya fa demoon. waaw ah. dëgg yàlla gisuma lu lu saafara ci réew mi actuellement. na ñu ne demuñu ne ñu. ñu ah, wax lan ñu ne woon demuñu ñu demuñu ñu ñu ne non il faut ñu ñu ñu ñu remake ñu remake Lumek ana ñu wax Lumek ñaan sa après bi ñu après doon na fi dem Moussa kii toog na fi wax ne dañu war a jàllale waat il faut ñu waxtaan man damaa waxoon waxuma woon bu dégg nga lii dégg lii ah mais man waxuma woon bu dem waaw en tout cas bi ñu nee ba ñëw moom taxaw nañ fii ñëpp ne il faut ñu waxtaanaat ah, non non man man man j'ai toujours été contre le dialogue ah, sincèrement parce que je n'ai pas vu l'utilité mais gisuma utilité dialogue bi taxaw fii ne yow la dialogue est rompu ba pare ñu ah, ne ah, ah, ànduma ci dialogue dee taxawal j'ai dit lu mu mënti doon ak lu mu mënti doon ñu woote dialogue la dialogue taxawal suñ ko defee baax na suñ ko taxawal taxawal déglu rek on ne pas la charrue avant les bœufs les choses sont archi différentes Mahfous man ngay defal débat dama ne la <laughs> le fil du dialogue est rompu entre l'état du Sénégal et la population sénégalaise loolu laa la wax de mooy ne état fii ci lépp lu mu mënti nekk bu dee askan wi lay liggéeyal fu mu ci toll dafa war a wax askan wi. yow li ngay wax nii. non defu ko. ni fan. à quel moment il y a eu un mais wax ma ci point nangam y a un dialogue qui a eu entre l'état et la population wax ma. non dama jàpp dama lay laaj quoi l'état ne communique pas. je ne vois pas de communication d'état moi je ne vois pas de communication d'état. tax li nga xamante ne moom mooy conseil des ministres bi gën te loolu tout le ni n'y a accès mm-hmm. ci li nga xam ne moom moo fay xew ñoom lu ñuy liggéeyal ñoom ci ci yenn poñ yu ci bari mm-hmm. même à chaque fois qu'ils son sortis pour nous dire que ñu defi jéego ci mbir mi ni mel mais par la suite gisuñu dara loo xamante ne moom moo ca topp mm-hmm. Sénégal kay mooy buuru annoncé ay ay ay loi yoo xamante ne duñ ko appliquer par la suite max fu Sénégal nga nekk di et ce fil du dialogue là n'a rien à avec un dialogue politique déedéet c'est une communication boo xamante ne warul dakk ci diggante état ak ñi muy liggéeyal pour que ñun ñi buñ ko dee juger ñu xam ne au moins sur tel point avancement ci tel projet ñu ngi ci tollu fii à part les chiffres qu'on nous annonce et les chiffres yoo xamante on se dit mais chiffres yi ñuy wax nii maanaam ñii fan fan la ci lan lañ ko dugal. ci li ngay wax noonu communication parce que l'État communique mais des communication boobu dafa am ñu koy utiliser. ana ko dañuy ni dañuy intercepter communication bi di ko di ko di ko interpréter beneen façon di ci génne ay naan lii baaxul ak lii du dëgg ak lii affaire désinformé. ma ne ñoom ñoo ñuy liggéeyal bu ñu liggéeyal on a def bu yaboo ma ne ñoom dañuy liggéey te comme dañuy liggéey nag <laughs> les gens ont un droit de regard ci li ñuy def mooy ne on a le droit d'approuver de manière positive ou d'approuver de manière négative les actions du gouvernement merci beaucoup Mamy merci ah tey la sant tey moom tey moom macha allah tey moom tey moom mi ngi ci forme quoi tey mi ngi ci forme merci Mamy Cheikh Ousmane waaw mobilisation bi noo ko gisee bu F bu f bi ñu gëj koo def loola loola Euh, mais euh, jàpp nañ ni gis gisuñu nag man maa ngi ko doon laajte quoi ñu ne ma ne gisuñu mobilisation bi a ah. mobilisation bi ci ci réseaux sociaux yi parce que bu njëkk loolu moom moo doon